cafka chocolat bi gën a neex mooy Monchoco Monchoco am na tamit en xamal na ma ni ni jigéen la boo xam ne jigéen bu toog palaasam la te wadd na sëram ba mu dëgër. da wax Xalil ne ko da nga vierge. waa bébé. Hmm? doo yéem sa nelaw nag mu ngi lay soof. waaw fóotum biir néeg bi daal. daf ci bëgg a nekk chaque loolu wax dëgg yàlla dafa mënul ne. à rythme boobu antaloo ko. bëgg nga may ma une ñu dellu man ak yow comme ni ñu meloon. man maa bàyyi bëggante man surtout ak yow.